aousu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim barakat cheikh alxadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi seen bokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba waaye di soppeeb sëriñ Mbàkke moom maam soxna Loo Jóob Taayif tey ànd ak sëriñ Muntaxaa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér roy Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci dëgg tey ñaano sëñ Moustapha samba mu yàgg fi tawér lool ak njabootu sëñ ak njabootu Cheikhul Khadim gépp cheikh sépp taalibe bi yëpp moo amaan mbégte di dellusiwaat ci émission bii nga xam ne ñoo leen ko tànnal te ngeen safoo ko lool te ñu di ko def alxamis ci guddi ju nekk bët set ajuma ñu tuddee ko ormay Touba mu nekk loo xam ne nag gis nañ na bañ ko sosee ba nëgë gis nañ ci ay résultats ndax waxtu jot nit ñi ñu ngi woo di ko rafetlu ak di ca gis seen bopp ak comportement yu bari yoo xamante ni si changé na ko te loolu nag jàpp naa ne lu baax la ndax wa sakkir fa inna moom tanfa'ul mu'minin or may Touba mën naa ne bañ ko door rek léegi mat nañ ñaari at wax dëgg yàlla nag lenn lu nekk nag gis nañ ko ci waaye lépp dañ ko teg ci njàngaleem sëñ Touba ak li sëñ Touba daan digle ak li fee sëñ Touba nekkoon ak lam doon digle ak lam bëggoon ku ko ci nekkal te nekkoon ci yooyu rek lañ ciy fàttalee mooy solos émission bi waaye nag tey jii dafa am lenn ci orma ji lu ñu war a gën a bàyyi xel jaaroon na fi sax waaye dañ koy feddaliwaat ndax dafa mel ne mook dum dunduk murit bi ñoo ànd te saa su nekk danga koy faral di gis te bari na lu nit di def lool da koy def ci ñàkk xam wala mu def ko it ci jàpp ne lii muy def xëy na dara nekku ci loolu nag fàttalee gi da ciy baax boo ko fàttalee xamal ko ne ko lii nga nekk kat Serigne Touba nii la ca daan doxee wala lii la ca digle woon loola dana ko euh, bàyyi loo xel la muy def ndax nit ñi bëgg nañ Sëñ Touba lool waaw gëm nañ Sëñ Touba tamit waaye nag nañuy jariñoo ci Sëñ Touba foofu la problème bi nekk dañuy jariñoo ci sëñ Tuubaa nag mooy fexe ba xam yoon wam xalloon te nekkoon ca te ñi nga xam ne ñoo ko toppoon mu tegoon leen te ñi cay dox loole rek mooy na nga xamante ne si moom la ab murit war xam ba mën caa tegu dëkk bee di Tuubaa nag wax nañ leen ba tàyyi na leen dëkk bee yonent bi junj na ko ba tàyyi junj na ko ci ay addis xëy na nag bu ngeen gisee addis yi ñu baree bari ci jàngalekati Sénégal yi wala rajo Sénégal yi duñ ko faral di wax la leen cay déranger mooy baatu Touba baatub Touba boobee ci jóge nag tam jóge ci gimiñu yonent bi tañ soloo ko ci ñi nga xam ne ñoo daan déglu waxe yonent bi muy doon ay hadis yu wér ñooña andi nañ ci lu bare bare bari waaye kon xëy na la tax nag nit ñi mënuñu a jot loola xëy na baatu Touba ba laa jàpp ne moo tee déranger ña nga xam ne ñoo ko war di wax te Touba moom ñëpp a ko bokk képp ku dem àjjana ëllëg yaa xam foo mënoon a jóge ak ci koo mënoon a aju waaye bu la yàlla teralee àjjana joojee ca Touba googee ngay mujj dem kon nag yaakaar naa ne bu yonent bi waxee ne Touba ki koy moom ëllëg mooy ki nga xam ne dafay bari ay istixfaar Euh, Touba liman wajada fi safihatihi istixfaaran kasiran te gis nañ ne Serigne Touba li mu def ci ay istixfaar waaye gis nañ ne Serigne Touba tamit li mu bind ci ay xasida istixfaar jàpp naa ne kon moom la yonent bi doon wax waaye yonent bi bu waxee dina Touba googu mooy ki nga xam ne ki koy moom ëllëg ki bari lu muy def ay istixfaar waaye mooy ki nga xam ne ah dana nekk ci àddina ak wër ba dund ci ba jóge ci te àddina du ko taasal dara. te buy ñëw barsax it du fa yóbbaale bàkkaar mu ne kooku mooy moom Touba loolu it gis nañ ne ba mu ko waxee mennum sëñ Touba yëkkati loxo moo remplir loola kon addis bari nañ du ñu jeex Touba googu yàlla indi na ko ci alxuraan wax na ne allasiina amanu wa amilu saalihaati Touba lahum wa xusnul maab ña nga xam ne dañuy gëm tey def lu baax Touba xusnul maab boobu mooy doon seen kër ëllëg. kon bu sëriñ Tuubaa jëlee tur woowu duppee ko ab dëkk tegu nag ci siraatal mustaqim woote ca kuy ñëw ca dëkk boobee war ngaa xam dëkk bi nga jëm si mooy ban ndax gis nañ ne ñu baree bari ca ñu ñëw Tuubaa Tuubaa du seen mu murit gi ñu doon ak gëm gi ñu gëm sëñ Tuubaa ak it jàppee ko muy seenu sëriñ jàppee ko it muy ki nga xam ne moo leen di xeetali moo leen sóob ci ñu daw ñëw Tuubaa kon nag loolu bu fekkee nit ki àgg na foofu kuy daw di ñëw Touba balaa ñëw Touba nañ na ko lii mooy Touba Touba day dëkkub jaamukaayu yàlla dégg nga li ma la waxoon bu njëkk yonent bi wa waxta waxoon na ko ñu def ko ci hadis muy lu leer naññi ci melokaanu sëñ Touba yi nga xam ne melokaanu na ko ba yàlla may jox ko Touba dëkk boobu nag képp ku fay ñëw dañ laa war a wax ne la comportement bi nga fa war a comporté woo te comportement bi weesuwul comportement bi sëñ Touba comporté woo ndax sëñ Touba daana wax ne. nit ñi de ñu ngi daw di ñëw ci sama dëkk bi te xamuñu ne sama dëkk bii day bu nu fi ñëwee la leen fiy mën a jig bañ mën fee nekk moo yor sama jikko ji sama jikko lañ fi mën a yor te jikkoy sëñ Tuubaa nag weesuwul jaamu yàlla ak liggéey digle lu baax tere lu bon te ab safaan loola nag képp koo xam ne si nekk nga ko fa Tuubaa sëñ Tuubaa parawaare woon na la waxoon na ne àjjana lay doon ci yow mooy tënku ci ndigal sax ci dox ci sunna te di ko roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan hanaatikin maridi waaye képp ku fa nekkee neneen na nu wuuteeg ni Serigne Touba nekke woon nekke woon it ci àddina wax na ne yëddu la jik moo tax mu ne wa junnatan hanaatikin maridi Touba dana tiis ci yow lool dana mett ci yow lool te Touba it dana la goqi sànni ci àll ba wala yeesu bi la yàlla nañ ci yàlla musal tey nag ñu am benn thème bu ñu tànnoon boo xam ne gis nañ ne moo jamono ànd te loola lépp bi la te sëñ Touba dafa sori woon biddaa lool mosu ko jege waxuma laag nag di ko laal waxuma laag mu di ko digle te biddaa boobu mooy nit ku bëgg a créer loo xam ne si ci ay tegtal yeneen la koy jële yu dul suñ borom maanaam daal du ko ame ci digalal suñ borom nga xam ne day dem ba bokkaale da ciy juddu nga xam ne dañuy dem ba loola day mujj mel na lay jur ay yàlla te yàlla moom kenn la qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla du nawleb kenn jurul kenn kenn juru ko kon kooku wéetal ko rek mooy lu jigub julit waaye leneen loo def luy lu wuuteeg loola rek jafe-jafe day daal di juddu ci sa dund ak sa ëllëg ëllëg kon nag loolu comme méthode la façon la boo xam ne dem nañ ba nga xam ne sañ fi ne ñi mujj a judd sax jàpp nañ na réalité la ñu dugal ko ci diine ji te bokku ci tamuy daa loolu ku ko dëgg bëgg a dëkke Touba war nañoo taxaw nag leeral ko askan wi nga xam ne ñoom kumpa dox seen digganteeg loola te biddaa baaxul biddaa day sànq nit ki day dugal nit sawara wala inses bi lay sëñ Touba daf ko daan sore dafa daan sori biddaa lool te bëggul woon ku ci ku ci tënku moom léppam ci sunna la ko daan def mu mel ne kon ñaan baatum ñaan yàllaa ko jëkk digle adduuni la wax astajib lakum la in sakartum la ashidanakum ñaan leen ma waaye kan la ñu war ñaan yàlla ne ñaan leen ma waxul ñaan leen diw wala ñaan leen kenn ñaan leen ma ad'uni astajib lakum ñaan leen ma may leen kon liñ ci mën a déggee ci tawxiid mooy yàlla la ñuy ñaan ndax mooy ki moom lépp ki moom nag moo mën a maye ki moomul mënul maye ki moom moo mën a maye waaye ki moomul mënul maye te loolu firnde ji ci àddina ji kenn ku nekk la nga moom nga mën a maye la nga amit nga mën a joxe comme yàlla moom lépp nag yàlla moo wax ne ñaan leen ma may leen kon baatum ñaan yàlla lañ ko war a def waree su koo def ma sàmm waree su koo def ma demba pour to jax bi mu gën a leer ñaan yàlla tegu ci benn condition bu rek sant ko sant sant rek la la ci teg de santal ma dolli adduuni astajib lakum waaye lu mu ca def condition la in sakartum la asidanakum wala in kafartum in asabil sadid Serigne Touba lépp lu mu mas a ñaan yàlla la koy ñaan mosul leen a gis fen fu Serigne Touba bind lenn loo xam ne da ciy ñaan doomu aadama wala mu koy ñaan ci leneen wala mu koy ñaan ci feneen lépp rek ci yàlla la koy ñaan yàlla nee na lu ma am yàlla ma ko bay lu ma bëggit yàlla ma koy jox lu ma ñàkkit yàlla ma ko xañ su ma yàlla mayee ma sant ko su ma ko ñaanee ma gàntal ma ma muñ kon loola ba tey sëñ bi jàngal nañu tawxiid ne yàlla rek mooy ki nga xam ne mooy aji bind ji waaye mooy aji maye ji kon sunu demee nag léegi ba nga xam ne tey dëkk boobu nga xam ne mooy Touba comme ni leen ko junjee woon ci njëlbeen nit ñooñu nekk nañ fa wut fa seeni kër wax na dañuy jëfandikoo di ñaan di ñaan ñaan goo xam ne ci nga yor sa kër ñaan goo xam ne danga nga ciy fayu ab xaalis ñaan goo xam ne danga ciy joxe ay tegtal bi sàngam nangam dana xew boo ma joxee nangam nangam dana am kon tuddatul ñaan ndax ki ngay ñaan mën na laa may mën na laa bañ a may mën nga mën na laa mayit lu bokkut ak na ko ñaane mu xool la gën ci yow mu defal la ko kon bu fekkee wut nga suq wut say xarfa fuufa wut say sunguf wut say béjjën wut say petaaw wut sa daa ak sa xalima di jël alxuraan yàlla ji jël ci ay aaya yoo xam ne la ko taxoon a jóg bokkut ak li nga koy doyee. di ko bind ci sobe di ko jaxaseeg sobe di ko jox nit di ko ko sangloo ngir di ko ca jox màndargam wala tegtalub la mu bëgg gis ngeen ne am na ci ñooñ dañuy bëgg fu ñu liggéeyee place waaye au lieu que ñoo xam ne yàllaay maye te yàlla joxoon na la sart yoo ko war a ñaane nga nanguwoo caa jaar non seulement waaye nanguwoo jaamu yàlla sax nag. nga dégg ñu ne la am na sëriñ diw bu nekk ci roq sàngam bee kooku de ko ay ci loolu la kala ko tegtal ak sa xel ma ca dem ak jóg gi ngay jóg di ca dem jéego bu ngeen seq yàlla dana leen ci rëbb te wala inchaasu billahi da ngeen tàbbi sawara ka nga xam ne it ma ngay woote loola ba di ko yóbbu ci ay télé ak rajo di ko publicité it kooka na xam ne mbugal lañ koy xaar bu métti métti ndax day mbirum suñ borom day coobaree suñ borom te mbindeef mënta remplacer borom ndax dañ ko bind te borom kenn bindu ko nga dem fa ne ko nag damaa bëgg liggéey barab sàngam mu daan ne la maa ci ay waaye nangam nga may fay ah waaw loolu kay bu fekkee yow am ngam xel yow miy ñaanloo war ngaa xam ne kii lii mu lay jaay amu ko ndax day ñaan day ñaan kuy ñaan nag waroo cee joxe benn garantie bu dul diis yàlla lépp rek lum la ca weexal nag jox la ko ngir yàlla waaye bul ko ca sartal ne ko jox ma nangam ndax boo ko joxee nangam rek da nga koy garantil ne ko danaa la ko jox te kenn mënta garanti luy jóge ci yàlla yàlla mi koy joxe dong moo ko mën a garanti waaye keneen mënu koo garanti nga nekk ca nag yor say bi jën nekk ca loola ku bëgg place ñëw ci yow am na ci ñooñ bu ñu bëggee jëfandiku ci seen moromam doomu aadama lu ñaaw sax ci yow lay ñëw maanaam nit koo bokkal barab booy liggéeyee te siis ko fa xatal ko fa te xam ne wërsëg yàllaa koy joxe kenn mënta xañ kenn dara nga taxaw mu ci ne damaa bëgg nga ñaanal ma kii mu jóge ci barab bii ndax barab bi li feeg mi ngi fi man duma fi mën a am dara kon yow dégagé nga yàlla kon yow génn nga ci cadre bu l'islam moom kon yow l'islam moom bul ko tudd tuddati ndax l'islam dafa am ay principe te principe yi mooy loolu yi mu ne la maa ci ay kon yéen ñaar ñëpp jëfandikoo ngeen musiba nangam nga may fay yëkkatil cent mille nga may jox da nga may jox nangam su ma nappee jox la nangam daal di dem wut ay bëjjënam jël ay alxuraan yi wut daam wut ay petawam wut sunguf lu ne mu wut ko di jàppatu jël alxuraan ji di ko jëfandikoo ci sobe jox la ko ne la boo demee takk ko wala sangoo ko barab sàngam nga xam ne fa koy sangoo boo demee foofa alxuraan jaa fay desaat te muy barabu sobe te alxuraan ne laa yumassahu ilal mutahharun loolu ci Tuubaa xam ngeen ne yëllul bu fekkante ne saytaane jekk na ko kooka yàlla dogal mu jóge fi ci coobare suñ borom nga daan ne hey sama sëriñ bi hey tët tët sama sëriñ bi man na kon ba tey it nga yàlla ci coobare. te addurru wan na foo min arrahmaani laysa min abidaani wa sudaani njariñ ak loraa ngi lépp loxol yàlla la nekkul ci ko weex nekkul ci ku ñuul su ko defee ka nga xam ne defal nga ko it day daal di commencé jàppee la yàlla lu xew mën a demal ci diw bàyyi yàlla na le te lépp yàllaa ko am lu am yàlla waaye lu waaye ñàkkit na nga xam ne yàllaa la ko xañ nit mënta may kenn dara lu dul ci eh, coobare suñ borom loolu gis nañ ne bari na biir tuwaata looloon sàmmantewul ak mukk ormay tubaa te wute na ak ni sëñ Touba doon doxee sëñ Touba dafa sori woon biddaa dafa sori woon biddaa dawu ko nangoo jege kon bu wootee dëkk bopp ci sunna la ko la la ci wootee ci jaamu yàlla ak topp sunna si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn wuru faa nekk di def ut ay bant ak i béjjën ak i petaaw ak alxuraan ji nga jël ko di ko jëfandikoo ci loo xam ne nekk nii li sëñ tubaa am lépp ci alxuraan la ko am nga gis koo xam ne it bu dee suñu mbokki jigéen yi nga xam ne lu mel noonu ñoom lañ ci gën a ciblé da ngay gis koo xam ne sii day wax ne sama wujj wiire bu ma sañoon mu génn dëkk bi wala mu tas ba ma des fi man dong ak ma sama jëkkër ñu tegtal ko sëriñ su ko defee boo demee da ngay gis na kër ga dañ koy rang bu kii dikkee la muy wax mooy mankat sama wujj wee damaa bëggoon nga fexe ba mu takkale ko borom kër gi ma mën a akki ma sama borom kër loolu am na ci Tuuba su ko defee mu ne la maa ci ay nangam nga may fay nga dem jaay sab or taqale lépp bori jàmbur ñëw dugal ca andi jox ko mu jëfandikoo ca jëfin wu ñaaw ba loolee bu fekkante ne dara laal na ci rek nga ne yee kii de yàlla ngi nii bu boobaa it loola la liggéey seytaane la fexe na ba génnee la ci kuréel suñu borom dugal la ci kuréelam te kuréelu seytaane moom ku ci dugg rek mu si xaasirun jël sayib jàmbur fexe ba tas ko fexe it ba naawatal jàmbur fexe ba nit yor place di liggéey nga def ca lool day xëy xëy rek daal di yanuy bagaasam dem ñàkk alalam ñàkk awaniram ñàkk njabootam dugg ci loo xam ne si kenn mësu ko gis loolu gis nañ ne ñu dëkk ci biir am na ñu dëkk biir Touba te sommante ña nga fay jëfandikoo loolu gis nga ñi ci sofinatu aman jàpp ba tey du jeex ak it jël dogalub yàlla puus ko teg na leen na ñoom ñooy dogal ndax da ngay gis ko ñu yor ay sunguf looyee fa ay appartement wut ay communiqué yóbbu ko ci rajo yi rajo yi dañ ci lañ leen ci interpellé la ñuy def sa monti wuñu njàngaleem sëñ Tuubaa nañu seetaat bu baax li ñuy def sa monti wuñu njàngaleem sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa musul dox ci biddaa kon kuy dox ci biddaa ak lu mu la mën a fay loo bëgg-bëgg sa sa sa rajo dox communiqué yooyu bu ko ci jàll da nga koo war a segg ba mu set wecc ndax bu ëllëgee des na la ci topp waaye defe nga ne toog benn place. wax ne man kat damay faj ndoxum siti wax ne damay faj sida wax ne damay faj émorite wax damay faj jàngoroy kajoor damay faj nangam lim lu mat juróom benn jàngoro yoo xam ne si jàngoro ju ci nekk boo ko doon yóbbu ci hôpital yi danañ ko testé ci machines yu bari ay rendu yu bari da ko am te da ci ñàkk ordonnance yu bari te ñu ko gis xëy na da nga da nga sonn te pour nga am ca place sax boo xamee ne que ni moom lañ la war a jël dugal la ci biir loola du boobaa du yomb kenn taxaw rek yor ay béjjënam yor ay sungufam taxaw ne la boo ma fayee nangam maa yor sunguf soo xam ne si boo ko naanee danga nga tàggale kooki rab da nga tàggale koog ndoxum siti da nga tàggale koog sida da nga tàggale koog cancer da nga tàggale koog émurit da nga tàggale nangam len lu nekk da da dolli sa ngóora day yokk awra day def nangam nga nekk ci dëkk Serigne Touba di jëfandikoo ay alxuraan ay alxuraan. ne da nga ciy dindi loolu yi nga xam ne yàlla rek a ko mën a tegg tegete moo ko mën a teggee loolu est ce que jooju orma jox nañ ko Tuubaa est ce que loolu orma la moo tax ñaata euh, ki ñu mel noonu nga gis ñu liggéey ci saytaane dëkk ca Tuubaa ñu luyee leen ay kër kër ya leen ko luyee ñoom moomuñu ko ay nit a ko moom ñoom ñay luyee kër ya ba ñu xamee ne kii lii la fay def lu tax ñu dëkk ko luyee ñoom itamit am nañ responsabilité ci Tuubaa Tuubaa moom ko set wecc wecc wecc wecc ci ci ci ci biddaa taq lépp ci sunna kooku rek moo fa mën a dëkk kooku it moom la sëñ Tuubaa wax naan ku fi ñëw yor sama jikko jëla ji nga gis ci kilifa yu bari it dañ koy jëfandikoo te ñoom ñoo waroon a joxe exemple ndax lu bon bon boo jàngee alxuraan xam dara ci mbindum sëñ Tuubaa war ngaa mañ a bañ a dugg ci biddaa bëgg alali addina ak bëgg ndono tax ngay dem ci sëriñ mu di la jox joxi béjjën ngay ñëw di gas ci kër gi di samp di ko sant ay nit ñu ñëw di la ko gasal ta nga wóor la ne boo jàngee ma dabul foofu ni dégg nga li sëñ Tuubaa wax ci ay petaawa ki béjjën ak ay jiite ki jaan ñu ñëw jël béjjën ngir bëgg bayre ngir bëgg daraja ngir bëgg ñu la wër bëgg ñu la topp loola tax nga dem di jëfandikoo lu aram loolu te jàpp ne nag yow moom dara du la ca fekk lu bon moom ku ko mën a def rek yàlla xoolatu ca kii ku ku ko jur rek fu mu bokk ca ñay def lu bon rek la lay clashé mu jeex tàkk kon loolu dana jur sax dem ba day jur ci nit ki ak kéefër jur ci nit ki ak kiñaan loo bañal sa morom rek daal di koy dem bëgg koo jaare ci loolu jaare ko ci wedd yàlla kéré say yàlla yaa ngi doon jaamu xërëm dong yéen a yem parce que jaamum xërëm la ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne si day dem fi barab sax fàtteel gàllaaj daal di wàññi ko mu jaral ko day wàññi na ne sama gàllaaj ga fàtte naa ko moom jàpp na ne bu ko yóbbuwul du jaay jàpp ne na bu ko yóbbuwul rek leenu daq ko fa mu nekkoon jàpp na bu ko yóbbuwul rek la mu bëgg du am ana yàlla booba loolu nag ñiy jàngale sarixa dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo ci mën di jaar léegi nag ñiy jàngale sarixa bu fekkante ne fu ñu la waxee lu mel noonu nga daat ne bërit daan leen di attaqué guerre xamal ne yaa ngi ci réer moo yéefat de doon jàkkaarloog yonent bi ba leen yonent bi bëggee jële ci xiram ba yàlla digal ko ne ko demal nga taxawal xare ci ñoom ñiy jël ay jees yi di xeex ak moom ba yonent bi gañe leen yéen a yem yéen a yem kon aw tur dong nekkul taxul ñuy wax lislaam lislaam pratique la kon nañuy moytandi ko xarfa fuufa yi ci rajo yi koy publicité di leen ko yombal ndax wa taxaawunu alal birri wa taqwa wala taxaawunu alal ismi wal udwan loo bëgg a bëgg a bëgg am rek li ngay am na lew li ngay am na sell tey ab rajo da ngay gis ñu teg ci ay jàng moo xam xasida la moo xam waxtaanikat yi di diine la moo xam ñu teg ci alxuraan dem ba ci biir ñu ne ko tekkat daal di teg benn euh, euh, ñooñu ñu wax ay xarfa foofa ñiy publicité seeni njaay ñu dem ca ñoom di leen laaj ñiy wax ñu ne ku bëgg nangam demal ci diw ku bëgg nangam demal ci diw loolu ku gëm sëñ Tuubaa doo ko def ku gëm yàlla doo ko def loolu dafa aram dafa aram kenn mënu ko daganal ak sañ bu nit mën a am nag mënoo ko dagal dafa aram te boo demee sax fu mel ne général yi nga xam ne ñoom ñooy eh, saytu wàllu audiovisuel eh, yi nga xamante ne si ñoom ñooy télévision yooyu rajo yi am na ci rajo yi dañ koy dañ fay tere loolu ndax loolu psychologiquement dafa yënuwul maana kon rajo yi bu ñu bëggee xaalisit it bu ñuy jàllale loolu waxuma laa nga teg njàngum alxuraan ñu di ko déglu ba ci biir am ko ma nga toog ca këram di ko déglu mu yàgg ne ko kettat dugal fa loolu wala ngay déglu xasit mu yàgg ñu ne ko kettat dugal fa loolu kon yéen a ko leen ko yombalal waaye bu fekkoon ko indi sa communiqué nga ne biir rajo du fi jàll yaakaar naa ne du nu siiw waaye fii ne waxtu jot ñi nga ci saret yi di darti darti quartier sàngam laa jëm sëriñ diw laay seeti diw nangam laay seeti ñi naan te nag man li ma gën a jaaxal ci ab sénégalais mooy maanaam ñooñu ñuy daw nag fi ne ku ci ku koo ci gis mu wane ne la man du ma wolof rek nga ne nag yàlla yàlla jë dëgg ngi nii koo ci wax muy lame na looy làkk aw làkk moo xam làkk bu mu a doon wutul wolof nga xam ne da nga ne dañ lay màndarga ne man dëkkul ci réew mi ne wuu kii kay moom yoo totot kii kay moom wolof sax dégg ko su ko defee nag nga gis nañ ci la ñuy yàqee diggante yi ci la ñuy tase sëy ci la ñuy yàqee alali jàmbur yi ci la ñuy dofloo nit ñi yooyu yëpp ci lañ koy ci lañ koy jaare ndax bu boobaa seytaanee da ciy participer bu baax waaye bu ëllëgee na xam ne la sëñ Tuubaa waxoon nañ Tuubaa gii moom képp ku fi dëkk yor sama jikko ji la jik ku yorul sama jikko ji du la jik loola moom sëriñ Tuubaa ay waxam du du deltu gannaaw bu ngeen gisee léeg-léeg ngeen gis foofu nit koo xam ne si dundin wu mettee métti lay dund te bu ngeen ko seetloo waxoon naa leen ko ordre bi dem leen fu mel nekk ci jumaa ji wala fi mbooloo yi bari fu mel ne ay marché occas ak yooyu boo taxawee jumaa ji ci penku bi ci koñu barabu Cheikh Salihu Mbacke bi yàlla na ko yàlla dolli leer digganteem ak eh, armel yi da gis na foofu mbooloo lañ fiy doon mu baree baree baree bare màggat am na ci ay soixante-dix ans am na ci am quatre-vingts ans ñii mën nañoo dox ñii mënuñoo dox ñii manqué nañuy cër ñii di ram ñii di def lu nekk sonn lool di dund dundin gu méttee méttee goo xam ne nii sëñ bi kenn yéenewu leen ko waaye bu nit taxawee dong sol bassin wala mu wàcc ci oto wala mu dugg fi barab rek da ngay gis. ni nga xam ne ni la weñ di biiwee lu mu bëgg nañ koy same noonu lañ lay same nga xam ne da ngay gis ki ñuy ki ñuy yalwaan day ne ci digg bi moom bu génnee dara jox leen dangay gis ñu di ko xëccoo bu fa jógee xuloo ba day mel ne xëy kii naan am naa ci nangam ñay raam ña toog fañ toog ñoo jóg ñoom tamit di ci xaar seen wàll te am na ci ñoo xam ne si ko xool at yañ am xam ne ñii kat démb jàpp naa ne bu nu jëfaloon yàlla loo xam ne sii lu neex yàlla la yaakaar naa ne doon àgg foofu ndax yàlla moom lépp lu ko waay jox boo ko joxee sa doole boo màggee mu téyel la ko boo ko joxee sa xam-xam boo màggee mu jariñ la waaye loolu lépp nag boo ko jëlee sànq ko kat ah jàpp naa ne loola moom doo ca mën a am la nga bëgg kon nañuy moytandiku xar fa fuufa yi nga xam ne ñi ngi koy def ci biir Touba surtout nag jigéen ñi njaaloo gi ngeen di dégg yëpp yëpp yëpp yëpp léeg-léeg bëti maa jékki-jékki ma bu daanu léegi léeg nga gis barab bu jékki-jékki tàkk léegi léeg nga gis fu ñu jékki-jékki ne ko ërtal def fa dara Touba moom loo fa nekk rek yàlla wut na nu mu ko segge sañ Touba ñaan na ko ko ba yàlla may ko loola may nga ko yàlla may loola nag du ko nanguwaat mu mukk am na melokaan yoo xam ne si ku ko mel ci biir Touba rek xalaataatal sa démb te xam ne nit ñi mën nga leen ko nëbb waaye yàlla moom mënoo ko nëbb dara te yàlla dara du rëcc ci moom kon nañuy yàlla yàlla mooy kenn li sëñ Tuubaa waxoon ne sama pàgguteef gi kat mooy wéetal yàlla ak tagg yonent bi kas bi ya tawxiidun wa matxul li nabi wéetal yàlla tey tagg yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam loolu mooy pàgguteefu sëriñ Tuubaa atihu ilahi xaadiman lil wasilati kas bi ya tawxiidun wa matxul li nabi kon sëriñ Tuubaa kon ndekate képp ku koy tuddoo fokk nga xam kan mooy sëñ Tuubaa fokk nga xam bëggug sëñ Tuubaa fokk nga xam li sëñ Tuubaa nar gis nga loo bëgg a am te jërewoo ko ci jaamu yàlla jaarewoo ko ci liggéey ak jàng alxuraan feneen foo ko mën a jaar rek saytaane nga fay fekk saytaane nga fay fekk moo tax nag dund balaa mën a jag dëgg dëgg dëgg da ngaa bàyyi yàlla sa bopp waaye dund bu naqaree metti laal mu yàqu te sa ëllëg gën a naqari sa tey jaamu yàlla fa nekkul jaamu yàlla moo tax Sëñ Tuubaa wax ne ñu ko dul def bu fa jaamu jëkkee du fa mujj te muy dëgg ndax jaamu yàlla ndax bu masaan wax nit ne ko na nga def mu ne ko jàmm rek wala sëñ bi ñëw nit ñëw nuyu ko ne ko mbaa jàmm nga mu ne ko luy loolu mu ne ko jàmm de mooy jàmm yàlla rek fuñ ko dul defee bu fa jàmm jëkkee du fa mujj kon nañuy wax nit ñi dëgg ne bu ñu leen bëggee sooy am na ci ñoo xam ne li nu nekk ñàkk xama leen ci dugal te dañoo dikk fekk ay mag di ko def ñu jàpp ne lii dëgg la mag mu suqi ko xees fees dell ak bi jaaw xamee woo farata xamee woo sunna te yaakaar sëñ tubaa yaakaar ajana te nangu woo jaamu yàlla kooku daf dëgg ngi noonu kooku ku jara xett la ndekete nga gis mag muy daw di wut ak lakk nga di ko sowe fekk mag mu toll foofu te xamewul farata nga xamal ko ko moo gën moo boo ko sowe moo gën fukki yoon ak juróom sowe gi nga xamante ne si ah koy sowe ki nga xamante ni si ah, day daw di wutig lakk kon nanu jàngat jàng rek ci la loolu mën a ame jàng sariixa ba mën a am tawxiid tawxiit mooy li nga xam ne mooy raxas jullit bi ba mu set ci ak kiifar raxas nit ki ci ak bokkaale raxas nit ki ci ak bokkaale am na ci ñooñ fi mu ne seen moromam doomu aadama lañ jàppe yàlla bu leen yàlla santee ñu lànk bu leen nit santee ñu xëy di daw dang-dangi guddeeg bëccëg te ka lay sant la koy defal du la sant yàlla te yàlla la boole ak moom loola lii firnde ji mooy da ngay gis koo xam ne man nañ xëy ci service ub nit di ca liggéey di ca ci yàlla yaakaar ci sëñ tuba te bëgg koo jaare ci jaamu yàlla te sëñ Tuubaa waxoon ne rajaa o jannaati bila staatin bi lan mooy nday nga dégg allahu akbar doo dem lan mooy nday nga dem di julli te jàppoo lan mooy nday it nga dem di topp koo xam ne si toppul yàlla nga xam ne kooka yàlla ngay dem ba di ko def bu ñëwee sa toogee ci kaw nga toog ci suuf su la ñaanee ba tafli la ci bu la loree laalee nga jël ko di ko barkeeloo te amutub tomb fa yàlla loolu it warees na ko seetat loolu ak réer la réer googu nag moom la sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko man du mën a yàlla na nang am nangami at yal na fi sax waaye nag lii tax mu mën fee yàggit loolu ci ñun ñii la mooy ñun ñoo mën a jël ak jub gu mu mën a yaatoo ci àddina ba man fee liggéeyal sëñ Tuubaa waaye am na ci wàllu yoo xam ne si ñaawteef duñ ko ñaawteef bu jé bu jéggee dayoo duñ ko teg bët kon ñaan ndekete ga ca gën a jub mooy nga nga sax ci jub nit kuy wooteeg jub nga jaboote la gis la ci jub loola dana tax nit yàgg fi moo tax nag mu xam ne nit ñi ñi ngi ci danger bu métti te ñi yaakaar sëñ tubaa bari na waaye ñi xam sëñ Touba ñi jéem a xam li sëñ Touba bëgg bëriwul moom wax na ko sax moom sëñ Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàgga nee na sëñ Touba fu aw turam àgg rek ak xel ko fa yóbbu waaye du xam-xam ko fa yóbbu tey effectivement muy dëgg ñi ci baree bari li ñuy xëy di tudd sëñ Touba bari na waaye mënuñu la ca jox benn référence boo ko mën a gëmee loolu ay xe ay xisa ay xar baax ak moo tax nag mu bëgg a jëlee loolu tax mu daal di ñëw jël nag barabu jàngukaay fas yéene ko tasaare ci mi xertal ci ndaw yi def ci milliards yu dul jeex ndax gis na ne lii bu continuer rek ñëpp ci ak kéefar la ñuy dellu duutuñu xam yàlla mukk ñu jox yàlla maanaam cëram kon loolu nag ñi ngi ciy ñaanal sëñ Muntaxa bu baax ndax gis nañ université bi nga xam ne taxawal na ko gis nañ ne it jumaa ji ci Ndakaar it mu ngi fay def barab bu mel noonu ca wet ga joxe na ci ndigal bu yàggul nga xam ne incha allah dinañ fa dem danañ ko defar gis nga ne it fii nga xam ne mooy stade bi nekkoon Mbàkke it def na ca lu am solo ndax li muy nii mooy li taxoon sëñ Tuubaa ñëw ndax yàlla mënoo koo jaamu te xamoo ko yàlla boo koy jaamu danga koy xam da ngay xam kan mooy yàlla xam li lim la sant mooy lan xam responsabilité bi nga ci am ak lii la ci yàlla di def ëllëg boo ko boo ko bàyyee dana tax ragal yàlla dugg ci yow te dana taxit nga mën a xam kan mooy suñ borom yàlla yàlla ba faw te dara du yàlla yàlla yàlla te dara du doon yàlla yàlla rek mooy doon buur moom dong mooy borom asamaan moom dong mooy borom suuf moom rek mooy borom njariñ moom rek moo mën a faj aajo waaye leneen ak leneen ak leneen leneen mënta nekk lu am rek ci coobare suñ borom la kon lu am nañ ci jiital yàlla segg ko ca ba mu set teg ko nële comme na ko sëñ Tuubaa defoon xam na mësu ko booleeg lenn yónent bii li ko sëñ Tuubaa di bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ba wax ne bu doon doxaat ci jamono ci fekkewaat ma fi muy dox ci ami dëkk danaa lal sama leex bii mu teg ci tànkam ak bëgg yonent bi foofu la ma saam waaye mësul jël mbirum yàlla di ko di ko jox yonent bi mësul jël mbirum yonent bi di ko jox yàlla da leen a séparé kenn ku nekk la nga moom mu jox la ko loola nag mooy taw dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ndax rey ak dekkal kenn ku ko mën ku dul yàlla amul nit tënewu ci li hôpital yi bari bari bari boo fa demee jàngoro jo ne da nga dégg ñu ne mën nañ ko fa ba mu jàngoro yi am na jàngoro yoo xam ne si sax kenn mënu ko faj waxuma la ak nag hôpital bii la ñuy dekkali nit nit bu amee nangam du dee mosee suko gis kon nag loola ci loxol yàlla la nekk kon nañ wéetal yàlla rawatina nag ki nga xam ne dafa dëkk ci biir Touba ndax sëñ Touba moom li mu waxoon leer na Touba moom yor sama jikko ji rek moo fi mën a jig nit ku ko fa ñëw te yoroo koy rek am na ay kuréel yooyu danañ la fa jàpp sànni ci àll ba muy jinne yi muy doomu aadama yi muy xasida yi muy jundi laahil karaam yi muy malaayka yi te ñooñu kenn ku nekk sëñ Touba am na ci loo xam ne que nii ci kaaraange doyu ko ab liggéey kon nag nañ xamee loolu bari na luy gar nit ki moo ko installé ci boppam te gisul it ñu ko mën a xettali te danañ dem ba yàq xol bi ba leer du ci ne ba bu gisee ko koy xettali sax mu attaqué ko ndax tey fi ne koo ci dem ne ko bàyyil diw mii jëm jëmmi yàlla ji nga koy jox mu attaqué la ger na yow da ngaa bañ sëñ Tuubaa te fekk ci tawhid la lay def loo sëriñ bi mësul jël yëfi suñu borom bañ na ko ba màggal gi bi mu koy déglu def ne nag lenn lu ci dagan na ngeen ko def ba des nag bu ci kenn julli ndax bañ ñu dekkal bi daa biddaa la doon bañ kon nañu moytande ko biddaa di ko dëkkee ci dëkk sëñ Tuubaa bële asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf